askan wi yeewoo ci gox yi ak goxaat yi ci ana ban taxawaay la ñu war a mën a am si wàllum transition énergétique bi nu dëgmal bokk si jubluwaayu CAJUST di citoyen actif pour la justice sociale. si ñu transition énergétique mooy ñu jógee si exploitation pétrole bi gaz bi ñoo utiliser énergie yoo xam te ni c'est moins polluant en même temps dañoo gis ne tôt ou te Fatick fi ñu nekk nii euh, ñu ngi waaj a exploiter pétrole Sangomar bi te communauté bëri déjà dañu am ay inquiétude tey ñuy xool ne réchauffement climatique dafa am ay jeexital ci seen dund ñu ñëw ñu war a exploiter pétrole te xam nañ ne pétrole moom suñu fay exploiter forcément na am ay conséquences ci environnement ci seen dund donc ñu am ñaari inquiétude yuy ñëw tey ñu war dem ci la tension énergétique parce que nii muy tàngee changement climatique bi tension énergétique rek moo war a doon solution pour lutter ou bien limiter l'augmentation de la température mën a antul transition énergétique bu jaar yoon te juste di xamle ni nguurug Sénégal war naa gën a bàyyi xel jigéen ñi nekkee ci secteur informel bi. suñ dee wax transition énergétique premier élément fondamental mooy accès universel à l' énergie fexe ba femmes yëpp am euh, énergie bu mat pour mën a euh, liggéey te tey mën na amaat yeneen liggéey yoo xam te ni mën na jóge ci li wax transition énergétique ñu fexe ba état bi suñ jàppee ne. les femmes transformatrices de produits halieutiques seen liggéey dañuy dañ sont menacées par l' exploitation du pétrole périmètre bi ñu amoon tey xëy na fekk na entreprise dañ ko jël wala érosion côtière bu ñu fexee ba suñu demee vers la transition énergétique bépp politique bu ñuy bu ñuy état bi di jël na fexe ba jigéen ñi gis seen bopp en terme de reconversion d' emploi kajus di wéy di def ay ndaje jagleel ko askan wi ngir ñu gën a mën a waajal exploitation pétrole bi ak taxawaay bi ñu war a mën a am jëm ci wàllum transition énergétique